présenté jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan man maa ngi tudd na Moussa Sow de responsable APR responsable politique APR bu Diender. Ah, ban message nga bëggoon a joxe ci doxalin. sama message tey mooy dama seetaan journaux yeeg côté yëpp ma gis benn parti boo xamante dafa taxaw muy opposition bi ñu tudd ànd wattu Sénégal. ma gisoon ne balaa sénégalais di nangu ñu leen di wattu ñun nañ leen saytu ba xam ñiy wax ñooy ñan. léegi nag ñaari weer yu ne dina am ku ñu leen ci saytul lan la lu mu fi yoroon lan la ci def ba sénégalais xam ndax ñi bëgg wëttu Sénégal mot nañ ko wala mën nañ ko buñ ko mënee ñu wax topp leen buñ ko mënul ñu bàyyi leen. tey nag dañ ciy jël kan Malick Gakou am personne la ñuy ñu fàttali leen kan mooy Malick Gakou lan la fi yore woon Malick Gakou moo fi nekkoon ministre sport ñu jox ko sunu ministre sport sa waay qualifié ñu aj stade ba aj équipe ba mu wàcc président de la république waat jox ko commerce sa waaye doxalul trois mois commerce boobu commencé am problème président de la république wàccee ko mu dëkk géejuwaay amul benn réalisation bu concrète bu mu boo xamante ne da ngay wax ne lii école bi moo fi def wala jàkk ji moo fi def wala leneen waaye da doon man dama jàpp man li ma jàpp mooy da doon làqoo turu mbër yi pour am tur dem politique te loolu benn fu muy Sénégal balaa ngeen di laaj seen réew da ngeen war a def loo xam ne ku ko gis xam ne yow mii mën nga yorem réew mais monsieur Malick Gakou ministre sport qualifié woo coupe d'Afrique des nations qualifié woo coupe du monde monsieur Malick Gakou ñu dénk la sunu sunu commerce defoo sax 6 mois mënoo dem nga wàcc nga taxaw nga ne da ngay wattu Sénégal da nga waroon wattu ministre yi ñu la jox boo amee compétence ministre yooyu ngay dee chaque 2 mois dina ñu jaar ci ci presse bi. jàngat kenn président de la république moom ñu jàngat ci dara bi mu fi toogee ba léegi dégguñu bal bu tàkk Casamance te amul benn pays bu ñu dendal benn président boo xam président Macky Sall dem seeti la nga jàppale ko waa Casamance la seeti ak waa Sénégal ñu ànd di doxal jàmm jàng fa lu tax waxu leen lool bi mu fi toogee doon président de la république ba léegi. essence bu yokkuwul bi ceeb bu yokkuwul bi loyaas bu ñu yokkul lépp yokkul lu tax waxu leen ci bon balaa ngeen naan Sénégal doxul yéen ñii yéen a doxul ñaati usine ñoo fi nekk ñaati usine ciment ñoo fi nekk sànc yaa ngi fes dal foo fekk ñi ngi tabax di yëkkati ngeen réew mi doxul balaa ngeen naan naam ne fa da ngeen faa nekkul kenn ku ne dinañu la jàngat yow dañ la dénk équipe nos dañ la dénk toll ne ministre des sports wax ñu lan nga fa def ban résultat nga am zéro laa lay may ñu dénk la commerce nga wax ñu lan nga fa def zéro nga fa am boon munoo wëttu Sénégal wëttul sa bopp te bàyyi Sénégal mbokki yi ñu seetaan jërë ngeen jëf